jërë ngeen jëf mbokk yi ñu saan fii ci biir réew bu Sénégal ak ci bitim réew ci seen rubrique invité de la rédaction tey ji nag ñu ànd ak benn responsable politique bu ñuy wax euh, bay àll Sylla mu nekkee fii ci zone Madiana fii ci dëkk bu sell bi di Touba xam ngeen ni nag ni ki démb lañ doon euh, amal ubbiteel campagne bi euh, ci réew bu Sénégal leader nag di président Macky Sall bu Benno Bokk Yaakaar tey ubbee campagne fi nga xam ne moom moo di ci dëkk bu sell bi di rawatina fi nga xam ne moom moo di ca Mbacké ginnaaw mu ñëwee nag ci xalif général ba pare dem na def meeting boo xam ne ni ñu bari ci observateurs yi euh, jàpp nañu ne euh, meeting bi réussir na ko xaw ma nag avis boobu d'accord na ci ak bàyyi àll am déet euh, lu dul lool dañ koy bàyyi mu nuyoo su ko defee ñu doog dugg ci biir waxtaan bi xool sujet yooyu naka naka la demee bàyyi àll ñu lay nuyu. ñu ngi nuyu waa 24actu ñëpp ak ñi koy seetaan ñi koy suivre ñu ngi leen di nuyu baax. ñu ngi nuyu Sénégal gépp Touba Mbacké gépp daal ak àdduna. Baye Alla démb président def na benn campagne boo xamante ne nii euh, nee na mbir mi jeex na làmb ji jeex na bu fekkoon làmb la mën nañu jeex na Youssou Ndour mi nga xam ne moom moo yoroon animation bi foofu nee na match bi quatre-vingt-dix minutes la waaye duñ def faute duñ yow loolu noo ko gisee démb. waaw man ni ma ko ngi ciy sant yàlla bu baax ndax nekk ci département muy bu ñëpp yaakaar nu bokk def fi suñu yaakaar ñëpp ñun ñu yàlla dogal ñun ñoo ko dëkkee yàlla dogal ñun ñooy ñi fi xam ni ñoo fi war a campagnal président ba lim ni làmb ji jeex na ñu amee ko fi ndax yaakaar naa dañoo wax ni Touba mooy deuxième ville bu dee ay électeurs waaw bu ko doonati nekk troisième koñ bu ñu fi amee yaakaar ba ñëw ubbee fi ñun ñi fi ñiñ ko ubbil fii ñun dañ noo sas sas woowu nag ñu ngi ñaan ci yàlla yàlla ba mu booy. ñëpp jàpp nañ ne président euh, jubuwul waa Touba ndax euh, élection yi mas a dem yëpp bu demee du ci jëlee ndam yéen ngeen fas yéene jóg xeex loolu démb ñu gis mobilisation bi apparemment ci li feeñ nii ci kaw nuruur lu am problème est que am na ay problème interne ci seen biir yoo xam ne amoon na ci mobilisation bi. waaw loolu xam nga mun a ñàkk ci dëkk bi ndax Touba li tax loolu mënu cee ñàkk dafa bari ay politiciens dafa bari ñooy nag dañuy wax ni ay politiciens la mais duñ politique. ndax duñ politique politique dafa nekk tool bu nga xam ne muy muy mbayum gerte soo ko defee ba noppi da nga caa war a topp léeg-léeg rek nga dem fa buddeet ñax goo xam ne yaakaar naa ne war na laa mën a yàqal nga buddi ko ndax yaakaar naa tool boo ko boo ko boo ko jiyee rek bàyyi ko wàcc ko boo ñëwee da fekk rek mu booy loolu nag mooy li dal waa dañuy fekk ñun ni dañuy politique mais dañuy toog nag fañ toog duñ jéem a lijjanti dara ci seeni militant ñun nag loolu ba tey ñun dañoo dalut Touba it boo gisee xeex bi bari loolu la comme ku mel ni ñun nag ñun yàllaa def ñun dañoo tànn dëkk Touba te caaxaane wuñ ko ndax tubaa lañ tàmm moom la ñuy liggéeyee bu dee fanaan jot na sax bu ñu nekkee Dakar dañoo bëgg fanaan si Touba du ñu tëju itam ba ci suñu bureau fan yi liggéeyee ca marché ba duñu ñu weer wu dee dañuy fay ay ordinance léeg-léeg nit ñu wax na lool te ci tudd wala leneen ñu di ko def kon ñun yàlla moo dogal ñu am baas loolu nag moo waral xeexub tubaa bari dañ lay xool ngay dem ak sa mbuum woyof rek ñu xeeb la defe ni mën nañ laa képp ci lu bari yaakaar naa nag du yomb man li may wax président na xoolaat boppam xool ñi mën amu te xam ni am nañ ko mu wax ak ñoom. Mhm. justement parce que barki bi ma amee yenn réaction yenn responsable bi ko dee jël ku ci mel ne Moustapha Cissé Lo ku ci mel ne Mame Say Mbacké mi nga xam ne mu nga bokkal zone bi ñoom ñëpp dañ ne président na xëppiwaat bëtam xool entourage am parce que am nañu ci bokk si ñoo xam ne dara taxu leen a jóg lu seen bopp. waaw man loolu moom laa lay wax ndax ñun ca njëlbéen li ñu wax rek ab dëkk bu toll ni waa dëgg la son son yi baax na lool lu am njariñ la mais man ci Aliou la man li ma gis ci biir dëkk bi damay gis nit ñu nga xam ne wóor na ma ni bu ñu leen boolee ca son ba it nañ jox son ba bu ñuy séddale duñ leen wax suñuy woo duñ leen woo nit ñi nag ñi ngay romb population bi ñiy ñiy politique ñoo gën a ñiy politique ñoo gën a ne mutuñu sax kaaru ñi nga xam ni dañoo yor seen carte toog ñooñu nag foog nga faale leen waxuñu nga di leen dox rek di leen romb loolu duñ ko def booy def da ngay def social ci dëkk bi def lu nga xam ne itteel na nit ñi borom daara yi ñi amul doole ñoo ñëpp nga mën a taxaw fexe ba di leen joxal dara lu nga xam président defu ko nga xam ne ñoom ñoom ci bopp boppam ñooy am cofeel ci yow ñu xam ne loo nekk ñu nekk ca ñun yàlla dogal na nag loolu lañ am suñu wootee nit ñi ñëw suñu wootee wuti dañ nuy woo ne nu yéen fu ngeen toll fu ngeen toll lañ may wax ma leen di wax fi ma toll su ma naree dem dama leen di wax su ma narta demit dama leen di wax yàlla dogal nag ñun président mooy suñu mbër te ñun tamit dafa am loom ñu lebal ndax nit tamit mënoo dëkk ci dëkk mosoo dem ni danaa bokk ci liste bi ñoom ñu ñëw tànnal la boole la ci kon bu yàlla dogalee jàllutit yow da ngaa war a am ngor taxaw fas ko yéenee fay ba lii mu jublu rek sama kem kàttan dinaa ko ci def ba yaakaar naa li muy wut man dina ko am Euh, jafe-jafe yi ak gàllankoor interne yi nga xam ne moom am seen biir yéen booy politique yi est-ce que loolu tamit euh, nekkul mbir moo xam ne day des ba euh, ndam li ngeen fas yéenee jublu mu xajamal ko. waaw loolu moom man li ma ci doon wax rek mooy soon yi man mooy ñàkk a gema ñàkk cee woon a Dakar moom mooy indi loolu ndax ab tamit boo ko yokkoon yu yëkkatee ni son sàngam ñoo ko moom ab dogal duutu ca mën a yomb ku ca bokk dana ñëw ku ca bokk dana ñëw. nit boo ko bëggee liggéeyloo te bëgg a gañe da ngay yëkkati lu nga xam ni am na solo nga jox ko ko yoonu kenn bañ caa nekk su jógee xool ki ci loru tam am électeur mu jóg dimbali ko seet gox ba nga xamante ne loru nañ ca te am électeur mu dimbali leen pour ñu ñëw wate mais tey man tey bu ma génn na bëgg na génn sama zone ak moyen waa zone bi bëgg a dem feneen ñoom duñ ko gisee noonu loolu nag moo tax man damay dem wut sama moyen ni bopp damay wut sama moyen ni bopp fas yéene jàppale président li ma wax ni dinaa ko fay boroom rek man dinaa ko def moo xam mu gis moo xam mu ñàkk a gis ñi koy xoolal nag man wax dëgg yàlla dinaa leen xarab tuuti ndax war nañoo xool ndax président wax de macha allah war naa bari ñu ko mën a gisal kon ñooñu dinaa leen xarab tuuti ndax nit la ko nga xam ni luy xew ci adduna bi war na koo mën a xam ñun ñi nga xëy danoo tax takku di def social lu xew bu dee màggal Tuubaa joxe ñu ñu ceeb nam ñu ko war a joxe ab tonne lañ ma jox mais teewul naa 30 tonnes fexe ba samay militant am li ñu. mais jafe lépp ci kan la ci ñi nekkal président fii la wala président moo dul déglu conseil yi ñu koy jox ah, jëm si Tuubaa. xam nga président dafa war a bari conseil nit ki bu fekkee dafa am wut ay conseil ñu war koy conseil te conseil wuñ ko dara dafa war a wutaat ñeneen nag làmb ma xam parce que mooy li ma la wax rek ndax màggal mënta ñëw président ñëw fi ba dem ak liñ ko defal ci màggal fi teeru nañ ko war a teeroo mënu ñoo gis te nit ñu nga xam ne ñi ngi jege président ñi ngi ñuy gis gis nañ ñu ci saal bi mais taxul ñu ñu président loolu lépp ñun naqariwuñ ñun daal li ñu wax président lebal nañu ngor te fas nañ ko yéenee fay mais nag na watu attention yem ci zone yi képp bëgg cee yem ñu liggéeyal ko yaakaar naa du mën a sotti ndax zone yi ñuy dagg yëpp di wàññeeka di dagg jéem a dagg suñu militant xam nañ ko ñun militant ya dën caa jëf ku ñu ko mën a jox zone ba te nga xam ne demul ñu jëf ko it du ñu dem fenn yàlla moo dogal nu am leen te nu ngi ñaan yàlla yàlla man noo may wërsëg ba ñun nu bañ a ànd ngir li ma leen doon wax rek man fu ma jëkk dem di fa tàmbali li ma leen di jëkk di wax mooy nan ànd ngir sëñ Tuubaa ba noppi bu ñëwee ñu doog ko ci kër man laay tàmbaleeg sama militant te dama koo fas yéene di ko jëf màggal day xew gàmmu day xew lu ci ne te dama ci def sama loxo du ma toog rek di seetaan mooy li ma ne tolla bab daal boo koy bay toujours yaa ngi ci war a def sa loxo mooy tax nit ñi su ma leen soxlaa ñëw du ñu xaar ma soxla leen dañuy ñëw di ma laaj ba xam war a def man damay toog fi ma toog mais li ci ëpp dañuy ñëw naa ma nanay def ak nan lan war a def. Mm-hmm. kon daal malgré des mobilisation bu rafet beeg yooyu yëpp njaw des na xambin daal ci organisation bi. des na des na xambin ndax ab ab koñ buñ la ko joxee mu mat ay ay village yu bari ñu la yaa seere nga coxat benn ngay wut fee wut fee ñaar ku ci ne nga jox ko kaar nga ci des nga di leen romb loolu du ko sottal ki kaar nga mën a am ci koñ bi xañ na koñ bi mën na mën na mën mën na ay quartier yu bari nga jox kenn kaar jox ñaaru kaar nga ci des nga romb leen dem loolu sottalut taxul la man a gañe nit day wut mu wut responsable bu nga xam ni yàlla dimbali na ko lañ koy dimbali yoonu kenn du ca nekk mu mën caa dimbali ca nekk. kon daal yow xaalis bi ni nga ñëkkuma cee d' accord waaye d' accord wu ma ci tam 100 pour cent ndax li tax d' accord wu ma ci mooy li ma la wax rek jaaroon nañ ci bañ ko bañ ko defee gisuñu ci bopp da ngay gis ñooñ dañuy ñëw toog nga jox leen moyen ni leen wala ngeen leen dem leen campagne par exemple ñu dem li nga jox doo a dem fépp mais dañ koy dagg man gis naa ji am ñu ma ñu ma dañoo démb dégg démb sax ñoom xam ne dañuy laaj kaar li dinañ laaj li war a dem ànd ak kaar bi te duñ dem loolu am na ci mooy li ma la wax ne la mooy léeg-léeg da nga taxaw fi nga taxaw yónni ay nit ñu dem li nga leen jox ñoom ñu dagg ko def ko ci seen poos kon peut moo tax mooy li ma la ne son yi doxul ni ma dox parce que nit tamit mënut a ñëw ñun la son bi la nga mu ñëw nga ne ko doo ci bokk mais bu fekkee moom amul ku mu def ci kaaram nga jox ko ko du mën a sarta kenn man dama dama liggéey ci confiance laay doxee ak samay samay samay militant li tax may liggéey ak ñoom confiance munuma fu ne ma jëlub kaar yóbbu fa kaar bi mën nga koo jël ba pare ne ko demal ma barab sàngam man naa am barab sàngam booba du ko xam wala du ko jubóo nit ki sa militant te doy la fa mu nekk ne ko jëlal kaar te ñëw boo ñëwee ma fay yaakaar naa loolu tam bokk na ci politique te def naa ko def naa ko ilaa Tuubaa mu réussir dama koy def jamono ju ne dañ ma yox bàyyi la nangam da nga yàqu may leen kuy dajalew nit ñëpp ngay dajale nit kenn ku ne da nga koy da ni nga mën a àndeek moom ni mu bëgg nit ki tamit boo fekkee da ko koo yóbbu ci barab muy muy teeru boole ko ku nga xam ni bu paree ci la muy def dana ko mën a yóbbu ndax mën nga koo boole kaar boobu da nga koo luyee dajee am liaison wala ñu xamante wala genre yu mel noonu ki muy na xam nga xam ne bu wàccee xay na ca koñ ba la dëkk su noppee mu yóbbuwaat yóbbuwaat ko ndax ki nga ki nga dëkk ak yow nga ne ko man damaa bëgg nga yóbbu teeru ba jox ko avance nga xam ko mu xam la bu paree du la fa wàcc mbala bu la fa wàccee doo ko fay jafe-jafe yi mel dañ koy nemmee ko ba ci autoroute Ila Touba bu lëndëm boobu man gis naa ay maire yoo xam ne ña ngi fa ba zéro heure mënuñu faa jógee ngir kaar ba leen andi woon sax xamuñu ko waaw loolu nag du nitu bàyyi la parce que bàyyi moom ni muy def moom xam nga ko moom da lay wax ne la yow mi ma dooy dooy nga ma jëlal sa carte ñëw boo ñëwee ma fay damay te damay am ñaari fan ñett nit ñi ma ah man de jëloon naay kaar ma fay parce que tamit ki naxee mooy boppam lay nax mi naxul kenn ndax nit ki tamit liggéey alalam mu ñax ko yow mi mu doyloo la defal nangam soo ko defut yaay nax sa bopp rek. Mhm. kon daal problème mu Touba daal mm, jàpp naa ne man sa solution bi wala saafara si lu jëm ci responsable moom nekk na loo xam ne man gisaguma ko jamono yi ñu toll. responsable bi président ñi koy xëccoo na leen ñun loolu lañ koy wax ñun xëccoowuñ ci man ko mooy li ñu wax mais est-ce que neex naa moytu parce que moom tamit mooy dem xëccu jëm ci ñoom gis nga transhumance si nga xam ne am na au niveau national kenn ku nekk ñi nga xam ne ay noonu démbam lañu war mu woo leen yaakaar naa ab noonu moom du gaaw a bàyyi moom du gaaw a bàyyi nag ñun mooy loolu rek li li ñu ko wax daal ñi nga xam ni am na luñ man mooy président li ma wax rek war naa mën a am ñu koy xoolal am na am na renseignement généraux ba mu doy

ñu ngi def ci askan wi lañ man seen kem kàttan di ko ci def mu wóor ko ni lii ñu ngi ko def te président joxu leen ko man su ma dee xool visiblement day mel ne yéen ñi nga xam ne yéen a ci gën a sonn wala gis ngeen nekk social bi day mel loolu mooy ña koy waxal ña koy digtal lañ koy digtal moo dëgg moo tax ma ne war naa xippi xool wala ñam jël ñu di ko xoolal mu xoolaat leen ba xam liñ koy wax dëgg la wala du dëgg yaakaar naa nag soppi ko dana am ndax li ñu jëm ni mu président moo soxla ñun nag dañoo laxasaay rek parce que yéen jàppale ngir mu am ndam. mais jàpp ngeen président dina ci génn. waaw ñun ñoo ci war a génn du président moo ciy génn <laughs> ñun ñoo ci war a génn. na ci base bi génn ca kaw doog cee génn. waaw ñun ñoo war a génn ci eh, li président bëgg du président moo ciy génn parce que ñun bu ñuy joxuñ dañ naan waa Touba ñun ñi dëkk Touba tey responsable ñun ñoo war fexe ba génn ci. Touba de moom mbir mi du yomb moom ñëpp loolu ñu wax ndax bu fi Idrissa Seck jëlee lim am Ousmane Sonko jël jël lim fi am Madické Niang jël lim fi am pur sax moom xëy na fi amu fi doole mais ñett ñooñu moom bu ñu jëlee jàpp nga ni président dafa am dara. ñun bu ñu amee suñ jom ji ñu war a am ñun ñooñu duñ leen ragal duñu ragal Madické duñu ragal mm, idée li tax duñu leen ragal ñun ay nit lañ ay doomu aadama lañ Touba lañ dëkk ni niñ dëkkee feneen ñëw Touba bëgg a nangu suñu nit ñun ñoo war a mooy loolu buñ jëfee ci nit ñi lu ko jar rek ñoom waruñu noo waruñu leen a ragal. man par par exemple tey ci loolu ñoom it ñu commencé ñoom ma dikkee Madické Idrissa Seck ak waa Ousmane Sonko yi ak yeneen candidat recalé yi cinq yi ñoom bi ñuy waajal euh, dugg ci biir campagne bi chaque jour ñu amal ay réunion Touba nekk benn mais yéen waa APR mënu leen woon a fexe fexe ba tenir benn réunion bu taxaw euh, loolu est-ce que mënul indi tamit wane ak gàllankoor ak galfan ci seen mbir. waaw mbir mi lu lu yomb na wala dafay am loolu président moom moo ko defal boppam campagne na ko ba pare. ndax def na kem kàttan def na lu nga xay nun nun gis dëkk bi am na soppiku nit ñi am nañ cawarte gone yi nga xay dañuy business ñooñu ñëpp dañuy ñëw ci no ah ñeen li ngeen def wax dëgg yàlla baax na ndax it nag toog sa kër fajar nelaw ba mu neex la nga nga jóg dem Dakar dem lijjanti say mbir bu la neexee nga si waxtu ba dafa am solo ci kuy lijjanti te loolu nag da koo defal ñu bari yeneen mhm, quatre candidats yow démb seen ouverture campagne noo ko jàngatee. man ñooñu man bëgguma leen di xool sax ndax man damaa am <laughs> xam nga nit ki nga xam ne moom da ngaa bëgg a jàkkaarloo moom. Ah, mais parfois tamit am noonu nga di ko espionné di ko xool ca ngir yow nga mën a nga saw taxawin mën a baax tamit mooy fexe ba fi ma nekk mu ñëwee ma dóor ma daanu rek. bu ma dikkee mbooloo ma fa nekk moom yéeme na. tiitu ma mbooloo man dama laa wax ne la man Touba laa dëkk dama fi fanaan demuma tukkiwuma jikkuwuma dama jóge fu sori muy Amérique bu ma doon wut lu nga xam ne rek bu ko la damay toog di tëdd di wàcc dama faa jóge ñibbi si ñaan yàlla dëkk Touba gii lim ah ma dikkee kay ab taalibe te am na fi kër ne yow waaye nag moom bu dëkk rek maa ko fi gën a dëkk man naa am Ndakaaru nit ñëpp dox du ma def Idrissa Seck démb moom Thiès gépp orange démb idi waaw kon nag noonu idée orange a Thiès ñun tamit dañu war a fexe rek ba fii ñu dëkk tamit ku fi ñëw rek ñu fexe ñun ba xam ne ñun ñoo moom fii nag loolu moom ñun waruñoo mën a taxaw nag di ragal kenn moom man de du ma ragal doomu aadama ci wàllu politique ndax li may jëf man wër na ma ni buñ doon tànn li wate ñu koy peinture kenn du ma ci ëppale président ñëw na ñëw na def campagne ubbi na fukki fan ak juróomi ci des yépp daanaka day absenté du fi nekk mais yéen responsable yi fi nekk te nekkal ko fi ban tànk ngeen fas yéene taxawee ba euh, lim fi def ñin ñi bañ koo fàtte. ñun tànk bi ñu war a taxawee rek mooy nekk milieu de terrain fu fu nu xool ba xam ne fii nit ñi ne nañ fa te wër nañ ni bëgg nañoo wate te gisuñu ku leen eh, jàppale ñun ñu dem fa jàppale leen bu dee luñ soxla bu nu mënul léppit leen man yëkkati ko jox leen ndax mosuñu leen a dig dara te defuñu ko. gis nañ ne Touba eh, am na ay jafe-jafe ci législative yi ba daanaka bureau yu bari voté wuñu présidentielle tam ñu bari ci réew mi ñu ngi ubbi seen i bët di xool naan Touba du ñu voté parce que xam nañu président am fa majorité dafa xaw a faible dina dina yàq vote yu bëri est-ce que loolu yéen naka ngeen ko fas yéene tuuma jooju nu ngeen koy nu ngeen koy dindee. tuuma jooju ñu ngeen koy jëndee ñun waa Touba mooy li ma la wax rek ñun ñoo nekk Touba ñun ñoo war a fexe ba xam ne kenn ku ne xam nga ku la man xam nga xool Aliou Sylla nga yaakaar ne am nay militant nañ fexee yàq bureau ndax bu ñu watee danañ gañe loolu tuuma mënu koo mag te ay nit a ko doon wax wax ji mi ngi fi am ngeen ko kon ki ñëw yàq biiru jàmbur ñu jox la dëgg loolu damay ragal ne nag ñun bu ñu doon yóbbu ci yoon sax état lañ war a yóbbu ci yoon ndax wax dëgg war a mën a arbitrer ndax ñun ginnaaw yàlla ñun dañoo toog ci suñuy urne demuñu yàq urne kenn kon ki ñëw ci suñuy urne di yàq ndax yaakaar ne dinañu wate kooku la ñu war a xam ni moom ñu tooñ mu tooñ nu ba pare nag ñu wàññi ko jox ko jox jox ñu dëgg ñun danañ mooy waat loolu yaakaar naa élection yi ñu jëm ku taaw bëgg ko yàq da nga am problème. juste une dernière question neewoon naa du ma dugg sax mais fokk ma ma laal ci tuuti parce que ñiy seetaan te xamuñu ñu mën a ñu mën a am seen bopp leer ci loolu soxna maam say Mbacke moom tam ab responsable la nekk fii ci Mariana sa zone euh, sa digg ak moom mel na jamono ji dafa am ay lënt-lënt yu ci am lu ngeen jotee. maam jote dama ko def ak Mbacke Mbacke ndax yàlla dogal na man ñoom laa yaakaar li ma koy wax it mooy man sëñ Tuubaa laa yaakaar sëñ Cheikh mooy sama sëriñ di mbokkam. yaakaar naa bi ñu amee coow mu ni bureau sàngam la bëgg ki ko doon xëccu dama ko ne jox ko maam say te yow nga dem leneen kon ñun cër biñ ko jox mooy mbàkke mbàkke liñ ci xamoon ñun duñ toog ñoom ci ci kaw buñ toogee ci kaw ñu toog ci ñun loolu rek lañ seex ak ñoom li ci des nag ñun suñu baas yàllaa dogal ñu am leen teeg nit ñi nit ñi ñoo ñu bëggal seen bopp xëccoowuñ fi tam ñun bañ demee ba bay taxawal suñu suñu suñu baas yi dama leen lu waay bëgg na ko jël su ngeen manqué ma dem indil leen soxlawu ma président soxlawu ma dara yaa ñuy jiite nag kenn sañu koo bañ ñoom ñoo takku ci ñii ñi ma fa bokkal nekk néewu ma fa ba ñuy fal lu ngeen bëgg jël leen laa leen wax su ngeen noppee su ngeen amul xaalis ma dem wuti xaalis jox lii de laa seq ak ñoom leneen luñ bëgg nag xaalis bi xaalisu population bi la li ma leen wax million lañ ñu joxoon pour ñu dem Mbàkke jox naa leen ko séddoo nañ ko wuti nañuy kaar samay militant bopp dama leen a wutali kaar yeneen cinq yooyu nee naa leen lii saama ko moom lii madiyaanaa ko moom su ngeen jugloo ci Kàntaan ma ñëw jox leen ko lu ngeen ko bëggee lu ci waay soxla jël ko. kon daal naa ay jàmm jamono jii jamonoy fël xoo jamonoy ànd la ak. kenn jàmm. <laughs> jaar naa fi législative am na yu ma xam damay xam nag bàyyi ñoom xam nañ ma xam naa leen kenn ku ci na jaar naa ci yow ci barab. en cas su fekkee président falowaatu ngeen nu ngeen di def. ñu ngi koy ñaanal yàlla nag mu faluwaat ndax li tax ñu koy ñaan. am na yum tàmbali ci sumb ko kon dañuy ñaan yàlla rek mu eggale ko. loolu fii ak ay fan yu néew dinañ ci xam dara yan kàddu ngay tëjee. kàddu yi may tëjee mooy nañu fekk fexe ba nekkoo benn kenn fu kenn ku ne fa nga nekk te man fa dara ñu bàyyi la nga dem liggéey ñi nga xam ne nag dañuy dem tëdd tamit ba mooy ñëw rek ñu ñëw di xuloo nañ bàyyi loolu. waaw mooy ci ñaata la toll. bari na bu bu leen kenn ndax nañ ñëw dinañ leen jox liñ soxla. ñu woteel ñu te duñ leen ci topp dara mooy bari na parce que jox nañu ne déjà 10 millions ñu dem. Mbàkke tertu bi rek 10 millions. 10 million kon nag bu ñu leen nee dinañ leen defal liñ soxla rek du du jënd mais nag ku ànd ci liñ bëgg dañoo war a bëgg ñun tànnuñu sax duñ seppat ñun dañoo jóg rek ne lii suñu askan a ko moom dañuy fexe ba ñëpp jot ci kenn ku ne nag yaay yaa yor sa sa mbañum rus. nit ki bu la dee romb te mu jox la ca sa wàll bu ngeen dajee ci nii boo soxlaa watee da nga ko wateel ñun noonu lañ bëgg di doxee duñ ne kee suñum noonu la tax duñ ko jox déedéet ñun dañuy maasale ñëpp buñ demee Madiana dañuy wër ñëpp six quartiers lañ am quartier bu ne danañ fa taxaw def fa lañ fa war a def. jërëjëf Père Alla Sylla li suñu papa ju baax ñu ngi koy jaajëfal di gërëm mbooleem équipe technique bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon bi ngeen mën ñoo teg bër ci cadrage bi Cheikhouna Ndiaye ànd ak Ousseynou Ndiaye ci njàppandal gi ci montage bi baaraloo Khadija ak ñëpp ñi nga xam ne jàpp nañ ci liggéey bu mu mën a yem ñu ngi leen di dig daje ci beneen invité de la rédaction prochainement jërë ngeen jëf.